man fooguma ne national dialogue buñ doon oote saa boobu mu ngi am oo ndax mu ngi nekk si seen xol yi for me it was a joke loo xam ne ni ñëpp welcome nañ ko amul benn parti bu des ci gannaaw bu ya bu président Jammeh eh, président Barrow oote national dialogue bi ñëpp a dem including UDP. Mhm. kon miinin ñun yëpp eh, jàmmi réew mi lañ bugg a gis unity lañ bugg a gis ci réew mi waaye su fekkee ne oote nañ loolu ba pare dellu di saadu nit ay kàddu di di sos. comme li nga wax noonu luñ ma wax man ok man façon ñooñu du ma tontuwante ak ñoom aw ma time boobu sax yaa ngi dégg waaye loolu du indi unity national dialogue bi dafa fail already te warutoon a demee noonu ndax tey pour convince eh, président Barrow mu war a convince at Gambians or political parties yi pour ñu ñëwaat together after bu mu jëlee atem bi ñëpp respond to that hmm. ngir kontante ak foog ne léegi changes dina am ci wàllu eh, déggoo ak nekka benn ci réew mi loolu mu jëwta am ganaaw ku nekka mu nge sànni kàddu sa morom kàddu yoo xam ne ne rafetut eh, jarut suñ diggante te ñu am challenges yu bari comme ni ma ko waxee ci réew mi loo xam ne war nañ ko mun a waxtaanee the platform boobu would have been a very big opportunity pour bu ko defee ñu boole suñ xel yi ak xol yi ñu seet naka la ñoo génnee Gambia ci pax bu mu nekk. unfortunately loolu nekkul di am dégg naa am na ñuy wër di invite political parties yi members te loo xam ne ni su fekkee ne national dialogue boobu moo war a continuer foogoon naa ne waroon nañ binda party leadership yi pour bu ko defee ñu inform leen ne ah ñu ngee jóg lii moo tax ñuy jóg mm-hmm. bu ko defee su ñoo jóg ñu jógandoor area bu ñu egga ku nekk nga osa nit ñi ñëpp ñëw toog bu ko defee ñu nekk benn waaye dañ dégg rek ne am na ñuy wër ñu ne affaire yi national dialogue dañoom ñooy ooyal suñ seen boppa suñ nit ñi on the ground warutoon a demee noonu ndax ñoom buñ soxlee national dialogue bi ñun lañ binda dañ binda all party leaders ñu indi ko si suñ head office yi su fekkee ne ñu ngi génn pour génn dem round pour waxtaan ak nit ñi ci benn ene eh, bi foog naa war nañ ko mun a yëgal parti leaders yi mm-hmm.